ci turu ki ñu fa yabal muy le président Karim Meïssa Wade waaye itam ci turu kilifaam muy le président Abdoulaye Wade di leen nuyu ci turu délégation bi ma àndal nga xam ne ki ko jiita tey mooy monsieur le maire Daouda Niang di doyen Daouda Niang mi nga xam ne li ngeen wax ci moom bi ngeen tàmbaleeg léegi wane na ne fii la bokk wane na it am na jaar-jaar ci parti bi fii ci Thiès avant muy dox ba doon maire Rufisque ci turu PDS ñu ñaan yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam may ko wér ak kattan ndax wax dëgg yàlla disponibilité am ñun ñëpp féete ndaw ràññee nañ ko moo ñu gën a jàmbaare gën ñu disponible loolu chance la bu ñu yàlla may moo tax dañuy jàpp ne teraanga la mu nekk suñu biir euh, kàddu gi may yëkkati itam ci turam laa ko yëkkati ndax moom moo jiite délégation bi lim nañu ñi fi newoon ñi ñu àndal ci délégation bi lim nañ leen wone rek euh, xër gu parti bi xër ci kër gi wane xër gu Abdou Karim xër ci kër gi may jottali nuyoo yooyu itam sunu kilifa muy Baye Mounir Njëgën mi nga xam ne tey moo jiite kër gi euh, jottali itam sunu nuyoo Baye Ahmadou Cissé Njëgën mi nga xam ne mooy taxawu jotaay bi at yi yëpp moo fi ñëwee moom laa fiy toogandool muy ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla Baye As gis naa ni mu uufe njaboot gi di nuyu itam sunu waajur wii di sunu mbokk di bàyyi Abdourazaq Baye As yow bu ñu nuyoo siidi nuyu nañ la ndax siidi loo ko wax mu ne Baye As loo ne Sidi mu ne waaw bàyyil danaa laaj Baye As wala danaa wax ak Baye As boo ñëwee li ma lay xam-xam-xam su ma ñëwee bala may nuyoo mu jàpp sama loxo ne ma nuyul Baye As loolu cofeel la ak nangu kilifteef Sidi nag sa diggante Karim at mu ne dama koy wax fii ci kanamu préfet bi ci cérémonie bi ci yàlla dogal na ne ñëw nañu fii ci waxtu wii waaye ci cérémonie bi incha allah am na beneen délégation buy ñëw ànd ak sunu baay yi sunu doyen yi nga xam ne sunu kilifa lañu muy may euh, Maysa Maysa Dieng Male ak Pape Mousse Diop mii ak ñeneen ñu ñëwaat ci cérémonie bi toog fañ daan toog euh, jottali la ci kanamu mbooloo mi li nga xam ne. moom mooy kàddu yu jóge ci Abdou Karim Wade waaye lii dafa mënul woon ñàkk ndax bi ngeen tàmbalee di def cérémonie ci lii xam nga nee na def na juróom benn fukki at ak ñett yaakaar naa ñetti at rek ngeen def cérémonie ci cérémonie bu mës a am ñun bu dul préfet ñun dong ngeen fiy jox kàddu ci moo ne de réew mi ñëpp xam nañ na la doxe loolu dafa wane euh, ne sàmm ngeen kóllëre jàngal ngeen nu waaye noonu rek ngeen mën a mel nag wax dëgg yàlla waaw ndax li for ko ci sëñ Moustapha dégg ko ci sëñ Amadou Baro dégg ko ci sëñ Ahmadou Cissé dégg ko ci njaboot gi yëpp euh, sëñ Sidi ni nga doxeek ñun rek noonu nga mën a doxeek ñun ndax leneen ak leneen am na fi de lu ñuy joxee ngi fi de lu ñuy wanee ngi fi de ak yeneen ci teraanga yoo xam ne yëpp ay teraanga àdduna la waaye kóllëre moo la ko gënal ci kilifa diine gi nga doon ci ndey ak ci baay kóllëre moo la ko gënal te it nga am relation personnel ak Karim personnel man sama diggante yow Karim rek moo ko fi doxal jamono yooyu mi ngi ci xat-xat yi nga koy seet mu woo ma woo la ne la kii laa la booleel man it nga jàppe ma ne Karim mi nga xam ne moom moo ñu boole woon ci saa su ma waxee Karim sa tur damay gis ne dafay kontaan day bëgg li mu may jëkk wax moom ci lu mu ne ma ne ko ca la mu nekkoon rek kon mbooloo mii ma àndal ñun ñëpp am nañu mbégte tey góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi fekk si la fii ci sa biiri mbokk feddali sunu kóllëre ak yow feddali kóllëre Karim Wade ak yow kóllëre bi nga xam ne yàlla moo ko jàpp moom ngeen ko seedeel ci Karim de xëy na mi ngi ciy góorgóorlu waaye yow li la ci war lépp ko loolu maa ngi koy seede ci kanamu mbooloo mi di wax ne dañu ñëwati rek sàkku ñaan sàkku ñaan ngeen ñaanal président Abdoulaye Wade d'abord mu wér am kàttan fekke lépp ba ndamal Karim mu fekke ko di leen ñaan ngeen ñaanal Abdou Karim Wade mu jibiseeg jàmm fekk ñu fi ñun ñëpp ci jàmm ñu teeru ko ci jàmm li muy wut muy réew mi mu am ko ci jàmm ñu ànd liggéey réew mi ci jàmm lépp doon luy dooleel diine l'islam waaye itam luy dooleel kër gii de ndax fii këram la am na ci yoo xam ne xëy na maak sëñ Sidi daan nañ koy waxtaane du waxu mbooloo waaye fii dëgër laayu Abdou Karim Wade la ndax yéene nañ ko ca ñu ngi koy ñaanal ca ñaan itam xamal na ma ne mi ngi agsi ci moom donc euh, pour bañ a guddal ndax xat na digg bëccëg la ñu ñëw fekk leen ci beneen programme ngeen may ñu lii lépp ci seen jot ak ci seen jotaay euh, kon ñu bañ a xaabaabal itam li ëpp solo daal ba ëpp solo mooy ñi ngi ñaanaat ngeen ñaanal ñu ñaanal ñu mooy ñaanal Abdou Karim Wade mu am ndam mu wér mu fekke ba li mu bëgg liggéeyal Sénégal mu mën ko liggéey lépp nag président Abdoulaye fekke ko ñun tam ñii nga xam ne ñun ñoo leen di gunge yàlla may ñu kattan gën ñu dooleel ba li ñuy xaar ci ñun ñu mën ko waaye itam sunu chef de délégation bi di alaaji Daouda Niang ngeen ñaanal ko yàlla mu am kattan ca ñu demee ca maire ya itam ñu tabaat ko maire de Rufisque nee na bëggul nag waaye man maa leen ñaan ngeen ñaan ko ngeen ñaanal ko donc euh, ci loolu lañuy tëje di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah bu amee lu ci dëng dote doyadi gila rek ak xër gi waaye bu ma sañoon wax wax yu gën a baax yooyu yu gën a wér yooyu ndax kër gi méngoo naag loolu li ma fi jànge ma fiy ñëw boobaak tey xaw ma kan waaye man rëccuuma man moom maa ngi sant yàlla bu baax ci ñëw gi ma fiy ñëw ca maa ngi ñaan yàlla ci kattanam ak ndimbalam bu déwénee ñu àndaat fi ñëw fekkaat leen fi kenn bañ a manqué ci liñ doon def daaw ak ren bu déwénee ñu gën koo mën maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëriñ Sidi ñu ngi lay sant la gërëm wasalaam allahi rabbil alamin suma salaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla barkeel seen ñëw bi di leen ñaanal li tax ngeen jógee ndakaaru ba ñëw fii yàlla bu leen ko rëccu yàlla na ngeen fi jëlee yàlla yàlla na ngeen ko fi déggee yàlla na ngeen ko fi xamee ndax yàlla dafa dogal suñu kër gi suñu maam alaajamat njegéen dana wax lu am solo day wax ne képp ku ñuy tudd ci réew mi te nga fi sa tànk képp ku ñuy tudd ci réew mi ca mag ña ba léegi teg nga fi sa tànk isaak mu daa ah, bàyyi sëriñ Tuubaa de ba ñuy xamayeen ba muy xamanteek sama baay boobu sañcul Tuubaa ma sañc Mbàkke Baari sama baay xamanteek moom foofu waaye bi ko tubaab bi nekkee bi mu nekkee ci loxoy tubaab bi bi mu ñëwee ba Thiès boobu nee na Thiès jànqeen la tudd dana tubaab bi dama bëgg ngeen may ma ma gisante sama mbokk mu ñuy wax si Ahmad Baro Ndiéguène moom loolu rek la ñaan tubaab bi tubaab yi may ko ko sama maam Alaaji Ma Ndiéguène nee na man maa yanu warga ba ak suukar ba ak miskit ya nga xam si moom la sama baay yóbbu mm-hmm. suñ maam sëñ Touba suñ maam euh, sëñ Saliou Mbacké di wax ne sama baay moo ma nettali mm-hmm. ne ba ma nekkee ca géej ga ñaari mag ñoom ba fa daan fekk sëriñ Pakala Cissé ak tafsir Amad Baro Njege ñoom rek ñoom ba daan fekk ci géej gi sëñ Pakala Cissé ko xam sax bariwuñu mm-hmm. te ba mu génnee àdduna maam sëñ Touba dafa takk ndigam maam El Hadj Malick takk ndigam sëñ El Hadj Amad takk ndigam ku nekk di xëccu pour jàpp ci pour sonn ci ngir bés penc boo tax yàlla li mu nëbb moo ëpp li mu wane bon boog fii bu ngeen fi tegee seen tànk jagle la chance la du dañ fay bokk moo tax waaye dañoo yëg ndax ñun suñu wayjur yëpp man sama nday jege la sant waaye addiyee la ko bàyyam joxe sama bàpp sëñ aas mii nga xam si ne mooy suñu mag di xalifa ndayam addiye lañ ko joxe ci kër gi mu jógee ab dëkk bu ñuy wax kër Modou Ndiaye indi ko fi yàlla la ma ngi doon ut moo tax lépp luñ man def lu dul baax njub sell ut yàlla wàcc nañ yoon bi te suñu wajur dafa am lu am solo lu mu wax bi muy waaj génn àdduna ku fekk fetewu mu tëdd mu dem ah yonent fii lay taxaw Cheikh Ahmed Tidiane taxaw fii sama maam El Hadj Omar Bora taxaw ni sama bàyyi nag dafay armalu toog fii sama tànk yi ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ko ah lu gan gii ma gisee fekk yóbbuwuma doom jàmm ndax nee na Moussa gane si sama maam Alaaji man Baro Njëgeen ci tuuti mu génn àdduna kon boog ñun jub rek man lépp lu ma am ak sama mag yi suñu njaboot Alaaji man Baro te wutuñu ci ñun yàlla waaye wàcc nañ waay damay politik yàgg na am benn leader bu ma ànd noonu sama papa moom ñëw mu ne waa dégg naa diw buy déggee ci oto bi yow da taxaw taw topp ci ginnaaw te moom sax du nuyu kenn benn kii beneen kooku bokkul PDS nag boobu yàgg na bëggu faa tudd ma ne ko ah papa politique moo demee noonu nangam nangam mu ne man ma kenn doom ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga bàyyi loolu da ngay bàyyi politique dama génneel seen euh, kii seen carte yi nañ taal lépp dama bëgg man bés penc sama doom di ramu nekk nit yàlla waaye ma toog ba yor yor romb tuuti rek sama bàyyi xalifa gay mi ngi soxna si doon tudd léegi doomu abdourahman gay ak tafsir mubarak ñëw seet si sama toog tuuti sama papa mu ñëw mu ne ma ah xalifa gay da yaay na ma nee ndax Sidi mii moo gën euh, Cheikh Tidiane si mu ko déedéet ndax Sidi mii moo gën Ablaye Wade mu ne ko déedéet Ablaye Wade ku baax la ndax moo gën Cheikh euh, sëñ Cheikh Mbacké mu ne ko déedéet ndax moo gis moo gën maam Ibrahima Niass Baye Niass mu ne ko déedéet ndax moo gën Babacar Sy mu ne ko déedéet mu ne ñooñu dañ naan di politique bu sel yow nga yow naan sa doom du politique yow kat xamoo jamono mu woo mu ne ma politiqueal ba mu neex la loolu nag ci loolu laa nekk yàlla boole ma ak nit ñu baax nit ñu sell li ci jiitu mooy sama frère Karim Wade ma ko déggee téléphone danaan ma mon ami toi tu ka taxoon ñu xamante kenn ka gën àdduna kenn ki wàcc na ko bu yàgg ñu xamante muy ñuy gàmm sama waajur mu ñëw fi seet ma ñu xamante mu ne ma dinaa la seet moom Karim ma wax ma def ko ni waxu gaañu ni ñu def rek ma xëy benn bis moom personnellement ndax fu ñu diggante ñu ñaar moom moo ko daan géré waaw mu woo ma ne ma dinaa fa ñëw bis sangam keroog ñoom Pape Moussa Diop président Maysa Dieng ñëpp taxaw mu ñëw ñu recevoir ñu waxtaan mu Mounirou na ko dama bëgg nga jàpp Sidi mi ndax sama doom la waaye baax na mu ne ma mu ne ko Sidi dama ko xool xam ne du wor kenn même bu ma yaakaaroon la nen wala lit doon ma proposé la nen waxam boobu dinaa ko sàmm mu ne dama ko gis ak wóolu di nit ku baax mu nekk ci ay tolo tolo comme ni ko président Mayoro waxee ma fekk ko prison ba mu ne ma Thiès dafa sori te fii nit ñi dañoo bari sama diggante ak yow teg naa ci Mayoro loolu Mayoro di ko dox di ko waxe ci farata rek nag lu dara xewee ci wàllu parti bi wala ci la wàllu euh, kër euh, ci kër gi ci lépp ma wax ko mu tontu ba di nit ku baax ku am kóllëre ay at muy ñëw ànd ak ñoom waale Albert mii ak ñeneen ak Bachir Diawara bu njëkk sëriñ boobu la Karim daan yónni waaye loolu lépp dekkoon lu rafet waaye Mayoro mii moo ko gën a dëgëral waaye bu ñëwee ba tey délégation bu toll nii bàyyeekoo Ndakaar ñu leen fu ñu jëm ñu ne kër Alaaji Amat Baro ndax sëñ Sidi Njëgeen mooy ñaanal waajuram ànd ko xalifa bàyyee muy Alaaji Amat mais sax waaye waaye wax dëgg yàlla nag loolu bu ma doyul lépp lu ma doon def rek tey xam naa ni ci dëgg laa nekkoon kontaan nañ bu baax góor gi daaw da ñang kontaan nañ suñu xol sedd na suñu xol sedd na Saliou Dieng kontaan nañ suñu xol sedd na Lamine Ba kontaan nañ Adja Ndeye Gueye Cissé kontaan nañ Adja Maam Diarra Fam kontaan nañ mm-hmm. waaye nag Assane Ba di nit ku baax mm-hmm. borom kóllëre ku fidèle ñëpp xam ni xaritu Maysa Dieng mais la ba ñuy ugitel ak Pape Moussa Diop mi kontaan nañ baax waaye son excellence kontaan nañ ñun mënuñu leen a fay waal suñu xol sedd na lépp lu ñu am nag ñun te Karim nekkul président suñu xol du sedd bu élection jotee sëñ As mii nga xam si la mooy kilifa gi ak njaboot gi yëpp dañuy ñëw ne waaw ñun ko ñuy wotal moo tax ren bi ñu nekkul candidat ba ma jaaxle mu jigi ma ne leen ah xool leen ku góor gi gën a jege rek ngeen sànnil ko wax ñun Ablaye rek la ñu ànd kontaan nañ bu baax di kontaan nag ci responsable yi nekk cees président Pape Moussa Diop ak Maysa Dieng ak góor gi mbay jóob mii toog ay nit ñu baax lañ ñu nit ñi respecté Pape Moussa mii bureau daanaka mooy permanence parti bi ku jug Thiès am loola jafe loolu la jaaxal dangay nga jubal bureau Meissa Dieng nag moom mooy symboliser le parti ci fidélité am ci engagement ak bëgg bëgg jàmm ñu ko baax la dafa maa wax benn bis mu ne ma lu ma jaaxal kuy comploter wala nga bëgg génn parti bi man doo ma woo ma ne ko yow nit ñi ñëwuñ la ndax xam nañu yow Abdoulaye Wade rek nga Meissa Dieng loolu la may la ma wax benn bis ma ree ba sonn waaye nag loolu lépp boo gisee rek ñu wane ne parti bi am na ay valeurs yu sûres yu fi nekk à Thiès bu ñu leen jàppalee dinañ dem kontaan nañ bu baax kontaan nañ bu baax kontaan nañ bu baax yàlla dogal nag suñu mag bii sëñ Abdourazac Ndiéguène chance la ñu ko fekkee de moom nii intellectuel la boo xam ne si dem ba Japon jàngi université li génne am euh, lu nekk mu am ko ci diplôme xëy suba ba ñu jëloon ko muy liggéey xëy suba ne démissionné naa damay liggéeyal yàlla damay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xëy démissionné ku ne jël siwaat na ko mu ne man yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tariqa tijaniya ñu gisee ma fekk ko ñu jotaay bi mu toog dama ne chance la ndax borom ñaan la borom course la te ku ngi leen di gërëm di sant di wax nag ne sëñ Muniiru Njëgën mooy xalifa kër gi waaye bukki démb bi ma alaaji ma yoro woowee ñuy waxtaan di coordonné ci lii dafa fekk ma toog ak moom ma jël téléphone bi parce que ko ñu waxtaan ñoom ñaar dañ coupé mu ne ma ah Sidi ma yoro mii ma waxal de kontaan naa ci waaye nit da am kóllëre man Ablaye sama nit la lu xew mu woo waxtaanu biir néeg ñoom jaan am na lu ñu seq loo xam si kenn du ko wax ci mbooloo waaye man ne ko ah papa man ne Abdoulaye gëj na waa recevoir waaye ba mu ne tëll mu ñëw xool ma ñu ne ko ah, xam nga Sidi Ndiégué mu ne teg message mu ne dañ maa waxoon nag maa bàyyi ma ne ko man waaw papa Moussa ngi toog ma ne ko déet bàyyi wu ma de mu ne ma sama baay laa àndal boobu ma nekk xale bu étudiant mu ne ma nañ dem ci penc moomu lu fa waaye ñaan dina nangu mu ne ba may créer parti bi foofu wala boog mañ dem fenn de waaye foofu laa fa teg ñaan mu boole maag ab rakkam yóbbu ma ci xam ba mu ne waaye foofu lu ma fa ñaan nangu na ah kooku fonk nañ suñu xool dafa sedd moo tax ñuy wax di waaye nag lañuy ñaan yàlla bu baax yàlla dëgëral suñu mag ji sëñ as njegéen sama mag la waaye bëggul dara moom léppam yàlla la utul dara yàlla rek dara bu xëyee suba ba guddi mu ngi ci dëj yi mu ngi ci takk yi mu ngi ci ngénte yi waaye mu ngi ci kurus yi moom boo ko waxee sa soxla dana day bind ne la ah, pour dalal xelam rek li ma koy ñaanale dama koy wax rek te suñu wéy ji noonu la mel kontaan nañ bu baax Adja Ndeye Gueye suñu xol sedd na suñu xol sedd na salaamaaleykum yaay ñaan yaay ñaan gi dañ koy defandoo parce que moom mooy sama kàddu waaw waaw ah jotal ngi sant yàlla waaw mu ne mu ngi sant yàlla bu baax ndax nit du mu ne nit du weddi boppam mu ne fii siidi mii li ngeen wax ci gore li ngeen di wax ci gore moo nekk ci moom moo nekk ci moom man dama wax ne ko man daf ko wax ne ko kàddu gu ma war a yëkkati kàddu gu ma war a yëkkati ci bu autorité ñëwee ci ko danga ko wax loo wax loo wax maa ko man maa ko wax te nag seen parti bii te nag yéen seen parti bi ku ci fidèle la. ku ci fidèle la. ku nekk xëcc na ko. ku nekk xëcc na ko rek. ku nekk woo na ko. ku nekk woo na ko. waaye musul nangoo génn. Ah, waaw waaye du génn mukk incha allah. moom fu mu mës a woote. moom fu mu mës a woote. ñun ñii fa ñuy woote. ñun fa la de kër gi ñun amuñu kenn ku ñu àndal. ñun ànduñoo kenn. moom ku mu àndal rek. moom ku mu àndal rek. moom lañu ñu àndal. kon nag bu ko defee. kon bu ko yàlla defee. ñun suñu njaboot rek lañ am. ñun suñu njaboot rek lañu am. ku ko jàpp. ko jàpp am nga ñu. am nga ñu. jumaa jooju ngeen ni wax. mu ne jumaa jooju ngeen di wax. ak institut islamique bi. Euh, institut islamique bi. 257 millions la ko suñu bàyyi préparé. 257 millions moo nekkoon budget ba. suñu bàyyi foofu lañ ko denc. suñu wéyjuur foofu lañ ko denc. li mu jaamu yàlla yëpp. li mu yëpp. foofu la ko tuur foofu la ko tuur. ba mu génnee àdduna ba mu génnee àdduna foofu lañ ko denc foofu lañ ko denc maag moom mii ñun ñaar ñii maag moom ñoo ànd ñoo ànd si place ba si place ba ñuy seet ñuy seet suñu bàyyi fan lañ koy denc suñu bàyyi fan lañ koy denc te boobu mu ñu ngi ko bàyyi si kër gi te boobu ñu ngi ko bàyyi ci kër gi waaw waaw wallahi dara jot ko dara jotu ko de dara jotu ko mu ne dem leen ngeen seet fi ngeen may denc dem leen ngeen xool fi may denc ñu dem di ko seet ñu dem di ko seet te ñoo ngi ko si kër gi ñu ko bàyyi si kër ba ko wër gri ba ko wër defar nañ ko defar nañ ko ñaar fukki fan ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ak juróom-ñaar muy soog a génn génn àdduna ndax moom waajal na boppam moom waajaloon na boppam de place bi nag place bi nag si dogitu place kër El Hadj Ahmed Baro si dogitu place kër El Hadj Baro Njegen si yaakaar am nañ fi yaakaar ñëw ngeen ñëw ngeen tawat leen tawat leen loo leen fi tawat loo ngeen fi tawat yàlla faj ko yàlla dina ko faj ndax bis bi kat ndax bis bi kat bis la boo xamante ne bis la boo xam ni bis la si bis yi bis la ci bis yi suñu bàyyi da kaa yaakaaroon suñu bàyyi da koo yaakaar léppam mu def ko si léppam mu def ko lu ñu fi def lépp lu ñu fi def du lu ñu dajale du lu ñu dajale du lu ñu cotisé du lu ñu cotisé waaye dafa nekk loo ne dafa nekk loo xam ni yàlla rek la yàlla kese la Mayoro Mayoro sant nañ leen bu baax sant nañ leen place boobu mu ne place boobu Karim Meïssa Wade Karim Meïssa Wade moo si jëkk a def alalam nee na place boobu Karim Meïssa Wade moo ci jëkk a def alalam moo fi ñaari millions moo fi indi ñaari millions te place boobu nag ku amul alal ju sell incha allah doo ko ci def nee na mën moom la xam ku ci def nee na à moom ñi nu dig ñëpp kenn andiwul la nga digee def ko ci nee na billaahi yàlla xam na ko nee na lu ci mas dem ci loxoom bii la jaar nee na waaye moom dong la xam ci ku nu xam ni day jëfe politique xaalisam dugg ci nee na kon nag yéene leen ñun ndey bés bii góor gu tedd ga daf daan wax ni daf cee ñime nee na ragalu ci de ndax nag ci la daan defare jaam yi nee na bés bi bu dikkee lépp loo xam ne yaakaar nan ko ci bés bii lan koy yaakaare nee na moom day mënta wax yenn wax yi nee na lii rek la mën a wax nee na lii rek la mën a wax nee na boo tax bu dikkee mu ni sëñ Siidi yaa xam waxal loo wax rek doy na ma nee na fii ku fi ñëw incha allahu sa aajo dina faju incha allah yàlla na ko yàlla faj nee na ku yàlla narta faj sa aajo fii doo fi xand mukk nee na kon nag nan bokk sant yàlla te dëgëraatal nag pas yi nee na ma nee na daf laa wax ni sànq ni la cérémonie bi yaa koy ubbi. Mm-hmm. ndax fii. nee na sang bu tedd ba masta def réception. Mm-hmm. nee na boo waxee rek mu yàlla. nee na waaye bi sëriñ sii di ñëwee. wax ko daf ko ni loo bëgg rek ñu def ko. nee na waaye nag biñ ko tàmbalee. yaa ñëw ubbi ko yow ma yoro ànd ak gaañi nga àndal. ak ñoom Bachir Diawara kon nag moo tax muy la aa yéen moom yëf yi kat ñëw leen taxaw nee na ñun daal ki nu yëg lanu xam nee na sëriñ Sidi mii moom lanu am su ngeen ko jàppee lu nu ñaan yàlla ñu laawaale leen ci biir nee na ñun soxlawuñu dara amuñu dara lu dul mbirum taalibe rek nee lool rek la ñu am kon nag nee na yéen li ngeen am def leen ko ñu nit ñu def li ñu am yàlla bu yàlla tas yaakaar yi amin sëñ Abdou ñaanal yàlla dafa dogal moom sunu rakk la waaye ñun ñépp am nañ ci moom confiance ci wax ak moom sunu biir moom su waree ñëw ci man xam naa ne day day dàkk sama añ ji mais dinañ def trois heures de temps te sama doom du fekke sama jabar du fekke ndax ne ma yow aas mooy sa xarit euh, xalifa bi waaye nag dama cër ci yow ma am confiance ci moom fa loo xam nag chance la ci yéen bi leen ko yàlla séddee ndax moom bi muy juddoo boobu maa ngi def cinquième secondaire moom maamam bi jur yaayam dafa wax ni sama sët bii dina nekk sëriñ bu ñépp dégg walla dina nekk buur ci réew mi hmm? te maamam nitu yàlla la taalibe gi ñu bokk sàgganu ci te li nga xamante bii nii mooy firnde nit ku baax mooy mooy kóllëre te loolu lañ fi waxtaane ñu ngi lay ndokkeel bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi koy ñu koy dëgëral di ko may fit ci li mu nekk yàlla na ko ci yàlla defal ndam ñaan gi nag ñi koy sàkku dañoo wax ni ñu bëggee léegi nañ léegi nañ leen defale noona